no back wee to the presidency ku bugg jël nguur gi defal niñ def jaareel ci bunti kanam gi bunti gannaaw amu fi de back way moo fi amut réew mi duñ ko joxe. réew mi duñ ko tën. Henry Gomez Henry Gomez mi duñ ko joxe. réew mi ñoo nguur ki ba géej gi fer. ñu nag réew mi ba géej gi fer. gi ñu nag Macky ba géej gi fer. bañuñ ci nanga def ñu ngi tane. bañuñ ci xolal comme day ni sipa sipa bañuñ ci dara affaire yi dafa gën a puuj paaj ni i daxi ni sipa sipa kenn mënu ci dara sipa dëkkin xool day ni sipa sipa ba géej gi fer nest